doon ak bànneex comme ni koy defee tous les mardis à partir de 13 h ñu ngi leen seen émission bi di xew-xew nga xamante ne dañ koy topp un peu partout fu ngeen nekk si ne lépp lu ay fait divers wala ay cas wala ay xew-xew dañu si biir émission bi tey nag ñu ngi fii si yëmbal route de Boune Boune xew-xew bu doy waar moo fi am gannaaw ay bis yi ñu génn moo am ay xeex bu fi amoon d'après li ñu wax si ay information ba nit mujj si ñàkk bakkanam moo waral tax te émission xew-xew ñëw fii fa seenee xam nan la xew-xew bi demee ndax coow li bëri na comme nag dëkk boo fa duggee da ngay dem si notable yi xool ñi nga xamante ne ñoom ñoo mbaar gox bi moom tax ñu fa seenee ànd ñi nga xam xamante ne ni ñoom ñoo dëkk ci gox bi waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifay gox bi ñu wax ñu xew-xew bi dal fii nga xamante ne seen kaw buntu waa gi ñu expliqué ñu nan la demee voilà ñu ngi nii taxaw a kenn koo xam ne kilifa la ci gox bi ñu fas yéene ànd ak moom ci émission xew-xew papa ñu ngi ah, maaleykum salaam ñu ngi leen di fay ñun ñoo dëkk fii ci Boune 3 quartier Lamine Sané léegi nag Lamine dafa dem voyage mais bi muy dem daf ma wax ne képp koo xam ne ñëw na laajte nga wax ci li nga xamee parce que yow mbir mi fi la ma fekk man moom lañ ma toppal ci moom maay absent mbir mi daal ay cinq heures cinq heures moins dix la am benn xale bu yoroon kalandoo bi ñu ko jamee fii ba yoox yi metti moom moo daw yooxu ñëw bi mu waxee waaye danañ ko rey danañ ko rey ah rey nañ ko nag ci laa ubbi suma bunt daw ñëw bi ma ñëwee su suma fekk xale bi tëdd fii mais dara amul luñ ko sange mu jaaxaan ci la woote ci kër gi benn xale bu jigéen bu ne fii moom mu mujj abal benn darab ma muuree ko ko ñu dem lamin Saale ma dem ci jàkka ji fekk moom Bilal la en même temps mu dem nag woo doomam comme que policier la ci la woote bi ñu wootee nag ci la ñu daal di dajaloo ñëw bi ñu ñëwee alors police scientifique daal di baare fële baare fii baare fii yëpp léegi nag ñu ne nañu xaar ba ñu def seen liggéey bi ñu defee seen liggéey ci la ñu woo sapeur ak ñaari ambulance ñu ñëw daje fi ñoom ñëpp ñu def seen constat après ñu yóbbu ko ñu ne nag léegi corps bi il faut ba lañ ko mën a identifier dañuy xaar ba xam nan lay mujje parce que ginnaaw ñu ko rey daw nañ te gisaguñu leen corps bi mënuñu ci jot ñu teeku fa dimanche mu yend fa altine talaata àllarba ba àllarba ci ngoon lañu ko mujj denc dégg naa sax biñ koy denc fii ci buun armée buun moo ne na léegi biñ koy denc dégg naa am na ñaar ñoo xam ne ci lañ bokkan financement ci lañ leen mujjutee. léegi papa yow da nga nekk sa fenêtre jékki-jékki dégg ay yu. wuy mi ngi dee rey na ko wuy mi ngi dee rey na ko ba doo génn cinq heures mooy diis parce que booba man waaj naa pour dem ci jàkka ji ci la affaire bi amee nag léegi ñu door a ñëw dajaloo pour ñëw xool bi ñëwee ma gis mu faatu ma ne ah Lamine ginnaaw suñu quartier la amee nag yow il faut nga jël see responsabilité nga wax Lamine nag wax na parce que li tax wax na. mooy quartier bi euh, niñ ko war a sécurité am na nu mu war a demee mais des na parce que mbooloo moo xam ne ñu ngi nekk ci benn koñ te xew-xew di am toujours coow yi di bari ñii sax dañu waxoon ne am na ñooñ dañ leen euh, comico la mais affaire bi fii la amee won naa la premier site bi. fan la fan la amee. premier site bi mooy fee. dem xool ko. premier site bi bi ko booy jamee fii boo fi ñëwee mën nga fi jëlee presque paanu deret booy bi nag tërëf ci la tërëfee daw ñëw nii. ñëw ñu topp ko topp ko ñoom ba mu daanu fii bi mu daanoo fii fii lay jaaxaane lii gis nga lii ci la bokk léegi nag ñu muur ko fi waaw ñu daal di koy muur nag doora woo police police nag bi ñu ñëwee ñoom it vraiment que def nañ seen effort kii sax borom këram bi mu jógee jàkk ji moom yëguloon xew-xew bi ndax teel na dem waaye bi muy ñëw ba mu tolloo fee lañ ko ne papa bul dem ñu baare ko mu ne mu ne ko liit du koor la ci lañ ko door a jaaralee parce que moom it këram moo ne ne mooy kële mooy soxnaam ci bàjjani gox yi la bokk waaw. mais yi fi agression la ku ñu doon agressé wala lan la. agression la parce que ñoom ñëpp li ñu wax yëpp affaire agression la. waaw problème daal affaire agression. ki ci dee moom moom doon agressé moom lañ doon agressé. ah loolu nag moom fekkee ñu ñun daal corps bi daanu fii fi lañ ko fekk ci lañ xam xamuñu nag ku ko rey police moom ñu ngi def seen liggéey. toutes les façons même boo demee police dañ la wax nañ ngi def seen enquête parce que gu ñu ñëpp actuellement nu ñu toll parce que group la ñoon waaw mais am nañ ci actuellement ñoo xam ne ñi jàpp nañ leen moom. te borom clando bi moom moo yewoon agresseur yi wala. non non moom moo doon yooxu pour sauver moom moomu moo woote sax pour man ma xam ko fi la nekk ba police fekk ko fi moo ni ma doon témoigner noonu la témoigner ci kanam police waaw. Euh, insécurité dafa am seen gox bi fii ñu taxaw muy buun 3 wala li mu fi doog am. wax yàlla Euh, rey bu mel nii moom si la première fois man bu ma fekkee Bara Gaye mi nga xam ne mooy maire bi wax dëgg yàlla def na lu mu man parce que moo fi tabax immeuble ba ngay seen mooy centre commercial Al moo ko fi def télé it moo ko fi def def na fit ay làmp xëy na la ca des nag a état moo ko mën a jàppale pour mu àggale waaye lu mu man moom mi ngi koy def ci gox bi. dafa am fii dafa am problème insécurité. waaw xam nga insécurité moom. Euh, quartier banlieue yëpp lay am quartier banlieue yëpp mënul fu ne police taxaw fa mënul fu ne police dafa dem waaye chaque fois moom man sama fenêtre trois heures ba quatre heures damay dégg police di fi jaar à chaque fois ak seen oto di def patrouille moom wax dëgg yàlla ñu ngi def seen liggéey commissaire bi ne fii mi ngi def seen liggéey waaye nag mënoo matale ñëpp mënoo matale ñëpp. mais agression daf fi faral di am moom. ah moom kay du fi gëj fëkk nañ portable sàcc nañ portable moom du fi jóg. parce que fële ngay gis mooy garage bi nga tourné nii foofu la car rapide yi di taxaw ci centre commerciale bi mais à chaque fois ñoom dañ fay def ay bêtises yoo xam ne yi sàcc li ci ëpp daal booy sàcc portable moom dañ koy def mais rey bi nag moom si la premier fois ma door koo gis moom. mais bi ko rey nag mooy bii parce que dafa dagaale gorsu bi waaw loolu moo ko rey moom moo tax bi mu daanoo fi presque yëngutul ni mu jaaxaane nii noonu la sedd guy. waaw. maa ko tiim fii la tëdd ma tiim ko nii ba xool ko bi may wax xale bi fan la dëkk boo tunee ci bi seen kër a ngi foofu mais seen baay dafa jaay kër gi tuxu kër Massar léegi nag moom moo magam ñoo fi dëkkan waaw moo magam ñoo fi dëkkan waaw fi mu toll ñu nga ca dëj ba parce que demb la ñu door a defar sarax si lépp mais teewul comme que waalo waalo lañu nit ñaa ngi dem toujours di jaale ji xam nga dee bu mel noonu metti ci xale bu ndaw. il faut say mbokk yëpp di ñëw di massaw imaam ñu ngi lay nuyu di la ziar baax a baax. Ah, waaw maa ngi leen di fay nuyoo maa ngi leen di wax bismillah ci koñ bi ah man bu ñu jullee fajar ci lañu ma wax ah, ki la ki nga doon waxante léegi moom moo wax ne am na ku ñu rey fee ñu waaxu foofu ñëw fii. bu ñu ñëwee ñu fekk gaañi yi al euh, ci taxaw fekk alkali yi ñëw nañu comme euh, doomu Sane bi ma waroon leen bu mu ñëwee woo ñu ñëw taxaw fii ñu man sax xaw naa sa dégg xale bi sax ndax xaw moo ndax ku dee la mujj bu ñu jaaral ni kii koor baa ngi ma gis ko mu tëdd fii man daal loolu rek laa ci taxaw nañu fii nag lu yàgg bee mu yàgg man ma ñibbi kër ga pompier ñëw pompier bu mu ñëwee ñu def seen constat ba pare euh, alkaati bi euh, gaa ñu jël yóbbu dégg euh, fii nag suñu koñ bi ko ñu jàmm la woon mais léegi nekkatul ko ñu jàmm ndax bu ñu demee ba rey ni jàmm amatu ñu buggoon nag ñu dimbale ñu nguur gi ñu dimbale ñu ci ñuy surveiller koñ bi ñuy surveiller koñ bi bu baax ndax ñun jàmm rek lañu xam fii fii amul xula amul xeex léegi nag bu ñu demee bi di xuloo di xeex di agressé dafa ñun dañuy ragal ndax ay baadoole rek lañu dégg noonu ñun mën nañu suñu bopp mën nañu taxaw fii di xeex ak ay agresseur nguur gi rek lañu mën a wax mu dimbali ñu kon nag ñu dimbali ci lii lii daal pour mu géej fi daal soxla nañu ko lool waaw mënuñu wax nag dootu fi am wala wante nag mu gét fi muy fee géej macha allah wante loolu la xam loolu laa xam yéen itam noo bu baax na yàlla def jàmm defal defal leen defal ko mboolem juddi. Badiane ñu ah, lay sant di la fay man la Badiane Oumy Diallo di leen. kon di kontaan ci seen taxawaay bi ndax déplacement rekk ñëw fii di seet naka laak noonu rekk loolu yëg-yëg la waaye ñun daal fi mu nekk nii ku wax ak ku waxul yépp sonn nañu parce que fi mu nekk ni ku def naka sudul noonu sax yaa ngi daw ci àll fii ci ñax yi ñax yaa ngi fii ci ginnaaw. dafa am benn forêt bu fi nekk boo xam ne ku def ñaaw. ñii sunu ginnaaw. mu ngi nii suñu ginnaaw boo pare woon sax seen dina la woon ñax yi ci suñu secteur la ñu côté boobu sax lañ dëkkee mais vraiment affaire bi am moom metti na lool. ko yëgee en tant que waajur. Ah, man bi ma ko yëgee dama yeewu suba teel ma doon am lu ma doon jënd ci bitig bi rek ma gis nit ñi ma ne lu fi xew ñu ne benn xale lañ fi rey ma ne rey. ma dem di jëndi ma seen ambulance kii sama yaram nag neexul mayu ma ma ñëw assister di xool ci laa retourné dem toogaat sama kër na presque ay 9 yooyu laa ko yëg sax ndekete affaire bi am na mais man presque ay 9 laa ko yëg daal mais daal ñun daal fi mu nekk nii ku ñu dimbali ci suñu secteur bi rek te yàlla tax ak sécurité loolu rek lañ bëgg fi mu nekk nii suñu njaboot yi toogatuñu xamuñu nu ñuy def naantuñu bu ñu jàng jee yow yaa ngi xalaat sa doom ndax dina ñëw ci jàmm bu ñu liggéey jee xamoon ndax dinañu ñibbi see ci jàmm wala déet mais daal ñun bu doon suñu sago ñu jàppale ñu tey yàlla tax wutal ñu ay sécurité yu doy ñun surtout ñax yee ku ñu ci mënoon a dimbali ñu jàpp ñu ba mu dañ sax man moo ñu gën parce que loolu moo njëkk a ub sa tëru koñ bi parce que ku ci def naka sunu noonu fa ngay làqatu ñun na xamuñu kan la ak naka la waaye daal ku ñu ci jàppale rek te yàlla tax loolu daal la soxla. ñoom ñi fi dëkk ñoom ñoo mën a wax li am si koñ bi ndax gannaaw rey nit bi nga xamante ne rey nañ ko mu nekk lu doy waar. ah xanaa métti rek surtout ñun ñi nga xam ne ñoo ci dëj ndax sama doom ji génnee keneen ki génne ma ne papam lan la mën a ma aw ma lu may wax ndax boobu sama borom kër moom bu jaaxee day day taxaw mu taxaw ma ne ko lan la mën a ma xale bu ñëwee nga xam fekk kër gi am na dëj ñax ma seen dugub ma defar ko sot naa ndox ci paan bi delluwaat di root ndox mu ne ma xam nga li ngay def ma ne ko waaw ci laa génn benn xale ma ne ko yow lan la mu ne ma dee ma ne ko ku dee mu ne ma paalaay ma ne ko ah mu ne ma yàlla xam ne meer moo dee mu na ne ci laa gestoo fii xool gis ko mais nag ñemewu ma faa taxaw ndax booba sama fit lu may def neexu ma ma daal di dellu ci biir kër gi tuddaati yàlla ma ne paa bi ñu ne paalaay lañu rey doomu maam sëy mu ne ma ku ko wax ma ne ko mu ngi ne tëdd ca lañ jógee nag ñu indi darab mbàjj sàng ko ndax bu doon koo xamul sax di ko sàng waxatuma nag nga xam ko waa kër gi bu ñu jógee jox sama doom góor gi dara bi ñu sàng ko bàyyi ko fa waaye lu ñu métti ba mu dëkk ci koñ bi léegi ma sama dégg sax xusu nañ ci nit agression moom am na fi mais xamuñu kan la toujours léeg-léeg nga dégg yuuxu yuuxu boobu nag mu ñëpp moo ñu moo ñu trompé ndax am na benn waay bu dëkk ci kaw fi bu mu yuuxoo ma ne ko man de diw mësuma ko dégg mu yuuxu heure bi heure cinq heures mu ne ma ah xale yi lay waxal rek ma bàyyi ndekki yow boobu suñu doom la ñu rey yàlla moom tin seede na barki démb damaa yendoo feebar démb yóbbu naa ay dëj ba mais xaw ma nan laa xaw ma lu may togg sama kër bi ñu lekk ko ndax métti na mësu fee am agression yi moom kenn mënu ko bañ ndax boo nee bañ naa ko rek xamoo li ngay bañ yàlla rek ko ñuy musal waaye fii moom secteur bi moom léeg nga dégg ñu jàpp boo génn doo gis kenn mën a wax ne diw la mën a wax ne kii la mais ñun daal lu ñuy ñaan yàlla ak yonent bi daal ñi nga xam ne ñooy autorité yi ñu dimbaliñ ci koñ bi kenn xamul nag kan la kenn xamul nak la kenn xamul nan la ndax boo nañu dëkk ci koñ bi la yaa ngi wax li neexul yàlla ndax koo ci jàpp mën ne moom la ñun daal dañu ne daal ñu jàppale daal ci koñ ba daal te yàlla tax daal li fi ne daal métti nañu lii fi am moom mos fi am wax dëgg yàlla. ñu rey fi la dëkkoon xam nga ko ban genre ah, bu baax man de jàmm laa xam ci moom. koñ baay ku mu forom ba tànt maam man de loolu alxames laa mujjee wax moom ne ko neel seey bëggoon naa fu ñoomee damaa soj. comme damaa soj mën na ma ñëw fa ndax comme nee nañ nañ takkaat masque bëgg ma jëm kër jàmm ñibbisi ñu ne mère Faye moo ñëwoon suñu kër dafa soj man de lii laa xam ci te yaayam it fonk fekk fa nga koy bàyyi. mu tam fa fekk fa nga koy bàyyi li de laa xam ci ñoom bu dipp ba ma dëkkee ci ñoom magam bu jigéen dem na ba sama dëkk sama doom bu jigéen bu muy sëyi kon nag man jàmm laa xam ci moom lu ma ko dara nag xamalu ma ko dara même doom ji ma jur sax xamalu ma ko dara wóor na Rasulullaay man doom ji ma jur soxna si xamalu ma ko dara waxantuma keneen. xanaa tiis lool metti lool yëgee ko yëg boo xamante ne nii wax dëgg si yàlla bi ko bi ma xëyee 10 heures génn di dem marché. ci laay gis sama benn dëkkandoo boo xam ne mu xaw a sedd comme damay tooñanteeg moom ma laaj ko ma tooñ ko ba na ko mu sedd ma ne ko yow lan la mu ne ma xanaa yëgoo rey bi ma ne ko ñu rey ne ma xale bu góor bi ñu rey te dëkkoon fii ci quartier bi. foofu sama yaram xaw a dee ma daay daw dugg sama kër yàggul dara ma daw génnaat bi ma génnaat te soo ko ñëw laajte kan la ñu ne ma xale bi moo fii la dëkkoon ak yaayam xale bi nag miinu ma ko moom de 100 pour cent mais yaay ji. miin naa ko ci yar yaayam miin naa ko ci yar miin naa ko ci dox ndànk miin naa ko ci wax ndànk xamal luñ ko dara lu ñaaw wax dëgg xale bi pa euh, euh, pa laay la tudd xale pa laay la tudd magam nag mooy ànd ak sama doom pa laay ay atam nag jot xaw ma ko mais du du mag ay 23 ans daa xam naa kon ci leen ndax xale la xale la waaw. mu am insécurité bu ñuy jaay seen gox bi ñu ne même fi nga xamante ne fi la sareet yi di nekk ak yooyu des fois dañuy def ay ñaawteef dem kii ko ba démb police ñëw na fii jëm ko dindi am na fi am na fi ah, suñu koñ moom ay eh, sécurité moom manqué na fi lool lool lool lool manqué na fi sécurité moom manqué na si quartier bi surtout suñu côté bi nga xamante nii euh, dañu yëkkati woon dañu yëkkati woon nit ñi yóbbu leen taw féex boobu ba suñu yoon yàlla tey kenn defarul kër koñ bi kenn dindiw joxewul kër yi ku daw fa ngay làqu si ñi fiy daw ñi fiy dugg nag dëkkuñu fi ndax bis bu ne damay dégg ay yuuxu chaque jour damay sama kër damay dégg ay way yaay mais su ma dee ubbee sama balcon balaa may tiim dañ fekk romb nañ ma ba dem fekk romb nañ ma te da lay leer ne ñi fi dëkk bu fekkonte ne ñi fi dëkk la duñ fi làqu see ñi fi dëkk la ñooy daw daw làqu yi daal ñoo fi bari loolu daal mu ngi fi soxna si ñu ngi leen di santaat di leen gërëm ndax nag wax dëgg yàgg naa suivre say say émission yow gis li ngay def wax dëgg sam rafet lool yéen waa 7TV di leen ñaanal yàlla yal na seen télé bi yokk ndax lii lii ngeen def nag dina bokk si bu ko euh, ñi ñu ëpp doole gisee mën a ñëw daw dimbaliñ si doy na waar trop xëy na fii moo leen tax a waaye bu ma soñoon sax ngeen dugg ba si koñ bi fële xool ñax yi di ngeen gën a gis sax li ñu leen di wax ci foofu noonu wax dëgg sant bu ñu fekkoon mën ngeen ñu koo may daal ñu dugg ba ngeen vérifier ba ngeen visiter fii bu baax. ngeen xool ñax yeeg affaire yooyu daal. voilà euh, Pape mu ngi nii nag yegsi nañu li nga xamante ne luy ay di jàmbat muy forêt bi nga xamante ne nee nañ képp ku def ñaawteef euh, fi la ñuy ñëw te xam nga 7TV lépp lu mu dugg da ciy dem ba jeex moo waral tax ñu mujj jóge foofu yi nga xam ne fa lañ nekkoon def émission bi ñëw xool ñoom li nga xamante ne fi la jëf côté ñaawteef di daw di dugg yaay yegsi nañu fii nga xam ne yaa ngi ko doon wax sànq di ko junj fii ñu taxaw nii mooy. fii mooy forêt bi ma la doon wax moo ngi nii gis ngeen. forêt baa ngi nii ay ay kër la yoo xamante ni dañoo jël seeni borom tuxal leen mais tojaguñ ko bu ñu ko tojoon nag ñu dimbali ñu si ndax fii lu ne xaj na fi. ay xotti kër la ay xotti kër lu fi am ne ñu ñemewuñoo laal benn këri jàmbur. ñemewuñ fee laal dara fi ñu toll ñi si këru jàmbur ndax loo fi laal pour defar ko ah borom ñëw na jox fay ma sama kër te lu fi am rek fii la jëm si. ñoo ngi nii tey sax ñun tey sax ñeme ngeen fee taxaw parce que fii kenn daaw fi taxaw ah waaw ay salté fii daan nekk lu ne moo fi daan nekk xale ay xale góor yoo xamante dëkku ñu fi ñooy daw dugg si fi def ñaaw téef suba goo xee di nga fi fekk ay pochette yu yoo xamante day leer na pochette yi yi ko fii si àll ba ñëw sànni si ko fii liñ la mën a wax daal soxna si ne mu ngi fii rek mu ngi fii ci biir suñu forêt bi ku ñu dimbali nag li laay war a sol yi jël nañ ñu dimbali li waaye war a sol yi ñëw jox borom kër yi seen kër ñu mën a tas fii ndax gis lii day yàqu rek li am na fii mënoon na nekk place bu nekk mais ñu ngi nii nii daal lañ ko bàyyee ku bëgg a sal sotti sa salte ku bëgg daw daw lu waaye bëgg def daal def ko mu ngi nii daal soxna si. voilà papa comme si yow la ñu ubbee woon si la ñuy tëjee tam yow mi nga xam ne yaa fi nekkal tey chef de quartier boobu di quartier bii ñu nekk muy lamin Sané ban euh, kàddu ngay tàggatoo. waaw moom li jigéen ñi wax rek ndax ñi sunuy rakk lañu sunuy jabar lañu bu ñu bokkee nekk ci koñ bi nun bu ñu xëyee léeg-léeg comme li lal Lamine mën na ma dal ma génn te ñoom ñoo fiy des li ci ëpp lépp ñoom ñoo ëpp lu ñuy xam parce que ñoom toujours ñu ngi fi guddeeg bëccëg soo gisee ñu woowaale imaam parce que mbir mi ñun ñëpp noo ko bokk ndax ñu ngi nii yëguñu koon waaye bi xew-xew bi amee dañu woo kenn ku jóg wootee leetar askan woo kii télé boobu asaare askan wi bi mu ñëwee maag Lamine ñoom dafa fekk ñu wax ak moom la ma waxan rek ñun daal ku ñu a jàppale ñu jël. ku ñu gën a jàppale rek ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax bi ngeen daggee seen i téeb ñëw fu seen àndoon ak ñun si émission xew-xew gannaaw jëye ji nga xam moom moo fi am xale bu góor boobu ñuy wax papalaay âgé de 24 ans jàpp 25 moom la fi faat bërki démb si dimanche bi fajar mu nekk loo xamante lu métti lool lool loolu la ay mbokkam yëpp nag euh, ñëpp àndandoo waa gox bi sëngéem ba keroog bi nga xamante ne police ñëw na ba def enquête beeg yëpp ñu daal koy gàddu yóbbu lu ci mën ci am daal euh, enquête baa ngi ci loxol yoon te jàpp nañu genn wàll gi kon ñuy ñaan émission xew-xew émission bi nga xamante ne fu ngeen ñu woowee te moom ay xew-xew dañu koy ànd ak waaye Pape Diop laa àndaloon tey ci caméra bi di jaajëfal coordination bi Papis Mbaye ah di jaajëfal euh, Pape Mendy ñoom ñëpp Lamine Mbengue ci montage bi rendez-vous incha allah beneen yoon jërë ngeen jëf di jaajëfal waa buun bu baax a baax.